waaw parce que dañu dafa dafa xaar lu yàgg. dafa xaar lu yàgg benn et puis bon comme li ma la wax rek xam nga justice moom dafa am yoonu boppam. voilà donc euh, di ku xalifa daal euh, di ñëw léegi nag défense yi moom vraiment lu ne def nañ ko ah def nañ ko de carte moyen daal teg nañ ko pour brandir euh, pousser affaire yi justice bi pour mu mën a bàyyi mais dañu bañ. waaw dañu bañ daal dañu bañ défense bi déroulé na ci ay erreurs xam nga nee na ay dispositions ay article 10 ay loi organique xam nga ay chambres yu ñu posé yooyu noonu yëpp ay conseillers conseil délégué yooyu yëpp yooyu yëpp gars yi dañ ko wax ñëwaat fii nii ci premier heure bi wax ci ay requêtes ay fin xam nga rabat ay dépôt sur la lu ne daal dañ ko wax cour suprême gars yi daal ne leen te xam nga cour suprême mooy bi bi kuréel bi gën non foofu jeex na non xalifa moom ci kàttanu yàlla mbiru maire moom jeex na na kay li ñuy lijjanti mooy nan lay def ba génn ca kaso bi mu nekk moom mais démb euh, euh, lépp dafa ko léegi nag am na benn last cool card dernier mooy le 16 waaw le 16 al xam naa ne boobu moom bu bu jàllee euh, na tari sóoratul muñ te ñu ñaan mag Sall mu gracier ko parce que Macky xam naa da doon xaar recours yëpp jàll mhm. pour lu si mun a def mu ah boo mu doon wootee dialogue national bi. waaw première euh, kii bi ka euh, rencontre bi loolu la waxoon. waaw dafa moom mënul euh, mënul dugg si kii bi daal si si mbir mi tant que recours yëpp. utilisé tant que recours yëpp utilisé donc am naa yaakaar ne le 16 juillet bi daal bu ñu génnee ci recours bi. Euh, yalla mun na dogal euh après ñu jëm xol parce que déjà ñi ngi wax ne sax khalifa mi ngi dans les bonnes grâces euh, du président de la république. donc kon déjà lolu libération annoncé bu kii maanaam Macky mi ngi xalat ñu koy bàyyi mais comme dafa am le 16 juillet bi nii mooy laas bi donc moom la ñuy xaar quoi Moussa Taye nag xam nga opposition bi ak ñooñu gaa si lañ bokk. donc ñoom aussi vraiment ñi ngi ciy euh, ñi ngi ciy ngi ciy wax rapport nag Transparency International li mu wax moom man ñi moom moo ko wax al bu ñu ko waxee dinañ woy ji buur de. déedéet waxal yu nee na policiers yi dirigeant d' entreprise yi ministres ak magistrats yi ce sont parmi les plus corrompus au Sénégal. waaw ak ñi ak ñi ñuy waxanteen. ah minorité dañu de. day wax dëgg yàlla xam nga si lépp nag tamit loo gis rek am na ñoo xam ne dañu doxal yoon moom dañu doxal yoon. loolu moom jaaxal waaye du suñu wax da nga reporté ay. dama wax waaw samay wax de waaw lobs daal lobs daal tey suba daal. bi mu xëyee ci mbiru Khalifa Sall ak daal ci yooyu la génne euh, ñëw na nag <laughs> ba à l' mhm. yaa ngi koy fàttaliku comme tant na. Ah, waaw waaw Alain Giresse Sénégal, na Sénégal moom mi ngi équipe boo xam ne musul gagné dara. D'accord. Dis gis nañ ko. voilà Alcal. nee na mi équipe boo xam ne musul gagné dara waaw Giresse face face au football qui n'a rien gagné. D'accord. Je laisse moi. wax quoi et qui a de grands champions qui ont gagné de grands trophées. waaw loolu daal Sénégal Tunisie lay dajal nag. Tunisie la ñuy dajal de. na toppatoo na topp fa la gàttaay. waaw waaw moom ñëw fi woon sax. ñëwoon na fi kay Mali Mali def naa Mali la defoon euh, seen équipe. Sénégal ñëw fi. déedéet nga ñëw fi dara. tous. en tout cas mi ngi noonu de léegi nag Rudy Garcia. ah ah soo mënulee ah, daal booy Idrissa Gana Gueye mi ngi yéeg de. Hmm. sa booy bi. waaw Imaam mbiru ngóor jigéen bi Sénégal coow lu bëri na trop trop. waaw léegi nag nee nañ eh. waaw nee nañ daal bu fekkee Imaam Kanté présenté nay excuse am ci Wali ah affaire yi mun na sedd léegi nag maam Góor Diazaka porté na plainte booy Amady Badiane xam Amady daal def sorti waxul lu ko neex waaw donc dèjà mi ngi noonu nekk na li nga xam daal si léegi nag tey jii nii. Euh, L'Obs si la xëy wax na si daal lu yaatu ci xëtam bu njëkk. moom Wally Seck la waxanteel kañ na bàyyi Wally Seck. tontu mu mu tontu boppam waaw vraiment waaw loolu moom loolu moom. xanaa mooy prêter le flanc nag. moom dëgg la waaye nag tamit am na leen lu xew de. ay booy jaaykatu yàmbaa jaaykatu drogue yi nii. waaw ñoo jàpp benn policier daal saa bu dikk. sa waay làpp ko làpp yu tàng jël. dañ de tey ñu nañ loxo bi waaye li ci gën a garaaw du loolu. Mhm. benn ASP lañ lañ jàpp ak ku ak un kilogramme de chanvre indien waaw ñoom daal euh, xam naa ne daal booy AS booy booy dilee loolu daal def nañ loo xam ne daal bu fekkee jàpp nañ leen moom. xam naa ne du du neex a lijjanti. homme de tenue da nga koy respecté. waaw da koy respecté waaw ñoo yore suñu kaaraange. waaw doy na waaw le soleil. le soleil moom dafa ñëw nee na nag demi finale bi ñu nag Tunisie la naar yi Tunisie daal euh, dinañ ñëw waaye nag dafa benn problème boo xam ne euh, le soleil def ci wax mooy problème mu avant-centre buteur mhm. ñun daal dafa mel ni problème boobu léegi résoudre guñ kan moy suñu buteur buteur attitré ñu xamné boy bi bi ngeul le comme ay genre ay George Weah xam nga ni ma leen expliqué genre xeetu buteur yooyu nga xamné sa way lu rombu ñu duggal mhm. Sénégal amagu ko leneen. comme ali Camara. comme ali Camara ah, flingueur. flingueur dal daal amaguñ yoy manam opportuniste. Oh, pourtant booy Mbaye Diagne ak Mbaye kii pourtant ay génne lañ de. des na ah nañu doxal rek. nañ doxal na nañ doxal nañ doxal. waaw mi ngi noonu daal nañ leen jàppale. waaw demi final bi daal loolu la wax daal léegi nag euh, mu mel ni rek euh, ci wàllu football bi loolu la ci wax moom nag ci page neuf ba treize la ci wax. Euh, Cour suprême de débouté na Khalifa Sall de nee na ko càlleen de ci kàttanu yàlla moom doo fa gaaw a dem moom. Ah, da ngay patienté waat tuuti rek waaw recours en annulation daal de sa révocation parce que xam dañ ko révoqué woon loolu vraiment ni nga ko ko defee du yoon

Euh, le soleil nak wax nañ ci la mais le soleil essainement dugg na ci ay yenen affaire yo xamné vraiment dugg ci lions yi defal len journal kan spécial donc wax ci lu yaatu Aliou Cissé. Ah, waaw ñëpp content nak waaw Aliou Cissé wax na ci Sadio Mané wax na en ah, Ndongo ndjay ancien basketteur wax na Madi Touré président nee une belle qualification xam nga donc gis nga gaay dé Sénégal Sénégal Tunisie nigeria nigeria Algérie. Algérie nag yàlla nañ ko gagné ak Tunisie yàlla nañ leen gagné. waaw mais saa yi loolu nga ñaanoon démb. non sama sama ñaan sama am na sama bëgg-bëgg mu def noonu. loolu kenn du ko def ci haute compétition. waaw saa waay dafa juum. Ah, ah, bu bal bi duggoon ñu tax erreur bi rek waaw duggul nag. bal bi dañuy tax. waaw mais saa waay moom ancien. xam na la def xam na la def. daf ko def ba pare rek ne baal leen ma baal leen ma. xam na lu mu def saa

Coche nee na Macky de nee na Khalifa ni ñu la dàqee baax na. ndax kon dèjà waaw daf ko daf ko sonewul Macky de. mi ngi nii de dafa dafa rendre jugement. xoolal lim bind. ay yow da ngay ah demal. yow waxal li ngay wax rek man waxuma ko de. man daal de toute façon journal baa ngi nii. waaw journal baa ngi nii. bu ñu demee nii soo kii ñoom en rouge lañ ko bind. caution waaw jeu de mots rek la. waaw jeu de mots la quoi mi ngi noo ko. léegi chambre administrative daal bu cour suprême débuté na ki nga xam ne mooy Khalifa Sall donc vraiment mu am toutes les procédures. bu révocation bi daal juge juge bi nee na dafa légal waaw donc kon dèjà ñu ngi ci loolu sud ñëwaat na tey euh, ci policier bi nga xam ne euh, perception corruption transparence internationale nee na police ñoo gën a corrompu ci Sénégal bon. waaye te nga jàll. sama naw si kay. Ah. maa ngi jàll ci leneen. laas nañ dem ci laas. nañ dem ci laas de. Macky daal supprimé na 15 agences.

ba ñu def comme ça ñu nekk dans un pays de droit da ngay dem ñu déglu li nga wax. kaay wax la nag benn affaire. su nga procureur am na fulla boo xam ne. Euh, li nga initié. su ñu demee bu boucler ko nga xam ne xaalisu contribuable nañu utiliser pour def ko. nga ñëw nga bañ a ñëw dañ la dem ni kirtim indi la teg la par la force. droit mën na loolu. Amadou Ba yàlla tàng na de. ma ngoog Amadou mooy ministre des affaires étrangères. waaw ñu ngi waaj chamboulement a garaaw a garaaw a garaaw daal diplomatie moom xam naa ne seen mbir daal dina dina garaaw de. Hmm? affaire bi la ah de. mondial de la corruption. police présidence ak le témoin quotidien témoin sans surprise par la Cour Khalifa Sall day delluwaat CEDEAO de moom léegi bàyyi mais est-ce que aussi bàyyi recours yi ñu gaa ay gracier ko gënul yomb tamit waaw mais xam nga nag sa dignité yenn saa yi xam nga nag position am la posture am la ah, ñu may ko bëggul baal ko dafa bëgg purger penam ba à la fin comme ça au moins oh. duñ ne kii moo tax mu xam nga loolu nag nit ki di nga toll foo xam ne saa yi day doy waar de waaw te ñi ngay ñëg da de moo tax nag comme bu recours yi jeexee moom dina xool li nga xam def si te def si daf si taxaw donc euh, Sénégal daal quatre-vingt-dix minutes moo ko teree dem final quatre-vingt-dix minutes waaw mooy benn match daal benn match moo ko teree dem euh, moo ko teree dem euh, final donc kon dèjà loolee nekk na li nga xam def si def si taxaw ñu ngi jiiñ nag Macky nee nañ prix moom moo ko bloqué woon pour gars yi fal ko waaye fi mu ne nii affaire yi ah jàppaat nañ ko de ah, loolu la loolu la les moom dafa ñëw nee na sénégalais yi ñu ngi accusé président bi ministre yi policiers ak magistrats yi corruption. ah léegi yow looy xaar da nga bëgg ma dëggal la ko ban. dëggaloo ma damay damay liiraat affaire bi pour xool li ñu ci wax quoi. parce que boo xoolee les ko ci page 3 am moom ci la ko wax de donc mu nekk loo xam ne daal ñoom bu ñu demee page 3 dinañ ci dinañ dinañ ci wax. donc kon dèjà loolu nekk na loolu dañ ko colonel Kébé aussi xam nga moom tamit quand yi gars yi dañ ñu ngi koy woo de ñu ngi koy convoqué lu bëree ah, bëri non hmm? kii euh, section recherche waaw doyen des juges nag moom nee na moom yoonam newul ci convocation colonel Kébé bi waaw donc ñoom daal ñu ngi ciy euh, ñu ngi si ñu ngi si kii ñu ngi ciy euh, déglu donc mu mel ni daal am na ay affaire yu garaaw yoo xam ne daal mi ngi taxaw donc parce que colonel bi warul participer ci benn manifestation. waaw ah, parce que c'est un homme de tenue. c'est un homme de tenue léegi nag c'est waaw léegi nag fi mu ne nii le 26 juillet bii nii.

waaw amay doom ñoom ñëpp tënku nañu tënku nañ ba pare dem dem Égypte léegi nag tey Les Échos moom nee na ñoom <laughs> nan la ñuy lijjantee loolu ay dara dañuy gérer nuñ koy gérer sinon kenn du leen yónni ah dañu dem dañu gérer déggoo ñu ne gérer sa vie conjugale à distance xam nga tamit wóolul boo dajee gaayu xaw doy waar yi nekk fi Sénégal ngi yow ñoom ñu nekk Égypte wóoru léegi nag les écoles tey ci la ñoo def ci gëstu bu yaatu. wóoluwu leen seen borom wóolu leen seen borom kër yi kii Seydina day yàq seen xel. non man noo yàq ma seen xel de waaw waa ECHO waa ECHO ECHO def nañ ci gëstu bu yaatu. nee ñoom jigéen ñooñu nu ñu mën a nekkee Égypte buggal lijjanti seen gars yi ne xam nga seen gaa yi ne fii tamit. gars yi fii dañoo jubul. ah waxuma ko de. Ah. ñoom daal bi ngi nii gis nga xool leen. xam nga ñii ñii ah ñii moom ay jàmbaar nañu. Ah, vraiment respect respect ah, à elle. Abi Diallo moom nee na nee na c'est difficile mais nak mom néna na mo koy motiver. dëgg la waaw moom abi moom loolu la Soda mom néna néna c'est dur en tant que femme mariée waaye nak seen bëgg-bëgg mo leen yóbbu. dëgg la te dañu si jàpp waaw waaw waaw lool la lool la lool la wax de ah <laughs> ki nak Kumba ja mom néna na dañuy dañ leen di dugal ci zone mixte yi rek waaw mais on se laisse pas faire. donc affaire bi daal euh, doy na waa Soxna Fall moom nee na euh, l'accès aux jeunes n'est pas facile. dëgg boo nekkee jigéen. ah regroupement dafa métti waaw léeg-léeg pour nga pour nga dugg dafay nek euh, li nga xamné ne ci si euh, c'est que joueurs yi sax dañu leen doon en fait dañu dañu dañu regroupement. entraîné wu am point de presse après dem seen yoon. waaw non noonu les échos. dégg nga Cheikh Seck maa la ko doon wax léegi. Hmm. néna na imaginel booy Alfred Gomis sa boy bi. bu fekkone ne dafa doftal bu biir babal boobu dugg. nekk xoolal nous sommes ici nous avons vu du bal dugul way tëjal li nga dem ah, ci leneen. waaw jall ci leneen yow enquête way booy bi na bàyyi li muy def coupe d'Afrique kenn du kenn du foowee bal ba ñuy dugg terrain yi baaxul ah baax na maa la koy wax fii ngay jéem a indi fi ay kii xam nga sa booy bi Neymar ñi la fi defoon moo koy wax bu mi ngi nii si kattanu yàlla boobu sama booy booyu kii la Daouda ok demal enquête enquête moom dafa ñëw ci paramètre booy baa ah, ñoom ñi ngi ci corruption bi de ñu ngi ci ko nee nañ c'est un donc déjà loolu nekk na li nga xam ne euh, daf si taxaw Euh, wax dëgg yàlla daal euh, mbir mi daal euh, doy na waar de doy na waar de nee na daal ci enquête de deux ans la ñu def yoo xam ne daal ay député ay chef d'état premier ministre police justice daal ay fonctionnaire de l'état daal actuellement gars yi daal li ñu leen di jiiñ daal man sama yoon aussi donc Khalifa Sall perte na yu Dakar li tax ñu rebe ko ko dàq ci mairie bi mu doon bañ ne ni ñu ko dàqee baaxul juge bi nee na lépp lañ teg ci yoon. ci yoon waaw moom daanaka daal. Euh, mbir mi du neex euh, du neex a lijjanti yi quoi. Euh, yaa ngi ko Pape Abdoulaye Seck. moo nekkoon mi ministre loolu xam nga. waaw de ministre de l' agriculture. dem na mooy ambassadeur Italie nekk conseil fële ci ci ci ci FAO. ah ah oui. ah dans son domaine parce que moom ingénieur agronome la. ah loolu la ah oui dem na de. Ah dem na conseil la fële ci FAO de. ba pare dem ambassade ambassade bu Italie. moom daal fële ci Rome moom fa la ko gars yi fa la ko gars yi casé. Coupe d' Afrique Sénégal Tunisie dimanche 16h. ci kàttanu yàlla. ku nekk na nga yore sa course rek parce que naari tamit mën nañu football de. naari mën nañu mais mais bi ma gis nii xanaa ñu jaay seen bakkante mais ni ma leen gisee démb rek. Hmm. tànguñu leen. ah. maa ko wax lu Walf Quotidien. Walf moom dafa ñëw nee na Khalifa Sall moom perte na définitivement maanaam wërëw a na waxu mag dem na nday waaw Khalifa moom daanaka fi mu nekk nii euh, su fekkee da ngay euh, da da ngay xool rek. moom fi mu nekk nii daal euh, dañu <laughs> la waay yow <laughs> garaawul dinaa ko tontu après donc loolu nekk na Khalifa Sall daal perd définitivement fi mu ne nii daal moom euh, bu ñu xoolee waaye débuté nañ ko par Cour suprême donc ci part 3 donc Khalifa Sall moom war na ginnaaw définitivement li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy mairie bi donc euh, Sénégal Tunisie dimanche bi Aigle Carthage tamit ñoom fi mu nekk ni ñoo ci ñëw ay eh, wàjj la sa boy bi Keita Balde. oui Keita Balde mais boy bi dafa perte kan bi il est passé à côté. il est vraiment passé à côté. Hmm. waaw donc loolu nag séeréer yi. séeréer yi jombi nañ ak tukulóor yi mburu day ñàkk 48 heures ñaari fan mburu du am. lan lañ koy changé ñun xam nga ñun am nañu amatuñu amatuñu problème boobu ñun mis lii. léegi mbaadu bu kee mais gars yi ñoom aussi bu ñu grève xam nga fii fii séeréer yi bu ñu séer tukulóor yi tey ñu dee xoolal ma lii rek tukulóor yi sànq nañ. le 20 ak le 21 daal gars yi nee nañ daal.

ba espoir fii ci Sénégal. nee na daal Lions yi moom dañuy retrouver les aigles du Qatar Giresse moom nee na ñoom dañoo bëgg a dem nu mu gën a soree rek ku dem ba demi final kañ foo jëmati fa sori. xanaa final nga jëm day jéem a naxaate. ba pare gis nga gis nga xas li xas yi benn naat bu bu dof la nee na Sénégal c'est un gros morceau dañuy jéem a catu mais bàyyi leen vingt matchs lañ fubal ñu ak ñoom tëf tëf tëf vingt match vingt match lañ fubal ñu ak ñoom. Tunisie am neuf victoire kese. waaw Sénégal moo ko mujjee dóor 2-0 la ko lap. mën nañu xoolal pression bi si ñoom la nekk fu mu ne nii. ah pression ci ñoom la nekk loolu nag nekk na li nga xam ne daf si daf si taxaw mondial U17 yi Brésil 2002 hmm. Sénégal États-Unis ak Japon ak Pays-Bas la dayal de. Hmm. loolu xam naa moom. waaw loolu aussi beneen euh, beneen affaire la. Hmm. ah donc euh, Mbaye Niang yóbbu nañ ko hôpital de benn noyyi dañ koo ñam. waaw yàlla na tëdd jàmm ak salaam. ñam nañ ko de ñam nañ demi-finale yi nag Afrique de l'Ouest la contre Maghreb. Sénégal, Tunisie, Algérie ak Nigéria. waaw ñoom daal record daal ci loolu la loolu la xëy tey waaye record boo xoolee nag am na ci yeneen yu mag xam nga record dafa nekk journal bu mag parce que wax na ci gazette kan bi gis nga Figo wax na ci. ah kii nu mu tee sa. Hervé Renard moom mooy. gaa yi temps yi moom doxalul. non dañ koy taxañal sax. est-ce que moom du dem sax. donc record am na lu mu ci wax loo xam ne dafa mel ni information bi gars yi amaguñ ko. Euh, am na leen lu mu wax également li tax ñu yóbbu Mbaye Niang hôpital. record record wax na si tey nañu jënd record xam li ne ah dañ koy dañ koy jënd record waaye xooluma lii record waxaat ci Alfred Gomis ah Cheikh Seck wax na de xam moom gardien de but la woon donc wax na si de wax na si de eh, xoolal waa ji nii Régis Bogabert xam nga moom mooy entraîneur adjoint bu kii. léegi ñu jàll si stade. bu kii moom daal gis nga lim ci lim ci wax. Mhm. donc sa booy baa ngi. ñu jàll si stade saa yi <laughs> dañuy ñëw booy Daouda la <laughs> booy Ama stade dañuy ñëw ci stade quotidien stade quotidien moom nee na euh, fi mu nekk nii bi ñu waxee ne tunisiens yi Sénégal ngeen di daje seen xol dafa sedd hmm. mais bàyyi leen ñu ngi dugg ci lu ñu lu ñu xamul donc euh, ñoom loolu nekk nañ ci 19 confrontation ñett lañ ci am hmm. bàyyi leen ñuy jëm a kii ñu ñuy jëm a a kii ah euh, dégg nga dégg nga dégg nga dégg Jules nee na moom bu ñu ko waxoon ne day dajeeg Sénégal dina xam ne beneen taxawaay bu muy taxaw day ko foofu wax rek waaw dèjà dèjà moom lool lool loolu la wax euh, défense milieu attaque bi euh, Kalidou Koulibaly Gana ak Mané ñëpp wax dëgg yàlla ñoom ñooy généraux wu euh, ki nga xam ne moom mooy Aliou Cissé donc waaw mu mel ni rek loolu moom dafa nekk nga xam ne taxaw sunu làmb ay waay de kenn bii dina tàng de chut tout tout tout mais booy lu mu wax nii. sama doom sax mu ngi daw nee na sa def revue de presse ba pare après xool après nga xuloo. booy gis naa li mu wax quoi. <laughs> Euh, li mu wax tegginuwul de. non bàyyi ko sunu làmb. sunu làmb moom Mansour Diop. taal na baabooy de. taal na Baboy de nee na daal Baboy dafa nekk mag ci Pikine ba pare. di diviser quoi. te magawul. waaw nekkul waaw nangul magul quoi. waaw loolu daal la Mansour Diop mais comme ñom la ci seen bi ñom ñep wa lañ. nous bu ñu mm, euh, dinañ dinañ donc mansou dal lool lool la wax quoi donc mu né mom daal ñom dañoo seetlu ne yu am combat rek guerre day am fofu non waaw mom mom hein ah. waaw néna tamit. C'est le roi néna Baboy d'après li mu wax Baboy dafa am ay yu pour lan ah bu gars yi suñu dinañ xam lu mu wax. la la wax. waaw nee na nag tamit waaye xale bu bees kenn du ko am de. ah. na waar de. ah euh, dafa dem ànd ak Ama li tax mu ànd ak Ama am na lu tax wax na ko gars xam naa bu ñu demee foofu euh, dinañ ko. Ama ak Boy Niang daal benn problème am fa donc daal mu mel ni daal Pikine Euh, problème boobu def si def si kii mais nag àdduna ku nekk aussi bon da nga war a fi ngay nekk rek quoi ah, waaw li ci des daal moom graaw loolu daal la sunu sunu su sunu làmb xëyee tey euh, ci bésu tey bi jërëjëf Seydina borom ñaari galon yi ñu joxante rendez-vous lundi. si morning king booy bi li mu wax fii tamit saa yi balaa ngay wax ay booy bi jox mu. waaw waaw dama ne la bonjour à vous bon vendredi mi sa taf bi xanaa dañu la mat. ne ko ñu la rek mu jeex tàkk. waa non dafa warul wax loolu aussi. <laughs> Hmm? mu doon gën a fës si xëtu yéen kaay maa noon si ak euh, Seydina borom ñaari galon yi. waaye ki mbéj la wax nga waxu ma man mat ki mbéj la wax saay wala mënoo lii ah lan lañ may mbéje. ba 14h dina teew fii amee la nag amee la nag ak sa lex bi euh, ba 14h. ma allah pour doxal King Feeling Pape Cheikh waaw saa waay 14h ba 16h Mayte dina ñëw. Mayte dina ñëw dina fi nekk sëf King Feeling ba ah 16h ba 18h Coco Jean nekk fii euh, bon week-end. avec la première radio digitale du Sénégal xara ah, rek yow mom laa lay joxal fin ba. Ah. ah bienvenue merci beaucoup d'écouter la première radio digitale du Sénégal muy King FM suñu numéro serveur nak ma len koy fàttali 88 628 99 90 ngeen ñu seetaan ci Facebook